Mohamed Ndiaye jërë ngeen jëf sikki sàkk amatul ci ne dañuy yokk njëgu courant bi ci réew mi maître Pape Demba Bitèye directeur général bu Senelec xëy na ngar dajju xët mu njëkku soleil national di fa leeral li indi yokku gi ak ni mu war a demee ubbil journal bi moom jiital Senelec ba muy conférence de presse démb fa la xam le ne benn fan ci weeru décembre ci la ñuy tàmbali yokk gi ñu war a yokk njëgu courant bi te yokk gi dafay lu munut a ñàkk ndax Senelec moo soxla koppar yu mu war a mën a doxale ab liggéeyam ni mu waree ba lañu ñu waroon a yokk ci njëgu courant bi waaye ba ñu ci waxtaan ak état bi ci la leen état bi xamalee ne loolee dafay dis ci ndoddu askan yi moom état bi dina gàddu 20 pour cent yi bu ko defee askan wi 6 pour cent rek lañ leen di yokkal Vox Populi yokkal ñu ci ne pour muy leer Sénélec nee na dafa am paxum fukki milliards ak ñaar moom lay wër nu mu ko fàtte maître Pape Demba bi tey ne te du askan wi yëpp la ñu yokk seen njëgu courant dañuy seet ñi ko àttan ñu teg leen ko moo waral ci 1 million 131 mille 53 clients yu Sénélec yi 611 mille 203 clients rek la ñu yokk seen njëgu courant La Tribune nañu yokk nañu askan wi aw naqar ñuy jooy yokk gi am ci hydrocarbure bi di jooy yokk gi am ci njëgu tonu ciment bi projet train express régional DER ñëw ak xaalis bu bari bi ñu ci joo BRT di bus rapid transit ak ñetti téeméeri milliards yi ñuy wax ne moom la ñu ci dugal mu di ay projet yu ñuy mbambaka jébaane ci réew mi ñu bëgg a xëy xëy ne dañuy yokk njëgu courant bi loole mooy bëgg a doggale askan wi le quotidien nañu njaw des naw xam bin ci yokk googee kilifa yu Senelec yi namm ci njëgu courant bi ne bu dee njiital Senelec nee na Senelec dafa soxla 12 milliards moo tax ñu bëgg a yokk njëgu courant bi kuréel gi di waa plateforme aar li ñu bokk nee nañu du ci dal Sénégal ñoom it ñu woote am ndaje di rassemblement bu mag tey ji ca place Obélisque ngir ñaawlu ak yuuxoo ko xultoo ko jéebaane yokk gi ñu bëgg yokk njëgu courant bi si du côté ñu njiital Senelec lu mu daaj rek waa aar li ñu bokk wekki nañu ko moom njiital Senelec di Pape Demba Bitèye avocat de la hausse la ko le teemu ñu tuddee xamal ñu ne génnee na ay siifaram ngir di leeral li indi yokk gi ñu bëgg a yokk njëgu bi Vox Populi nañu société civile gi ci réew mi woo nañu ñëpp ci ndaje tey ji ca ngoon ca place Obélisque ngir ñu bañ lànk kandaare yokk gi ñuy wax ñu wax ci waxi ndonga yi seenu sub sëriñ jéngoon ca njañ vox populi mi ngi ñuy xamal ne am na ay sëriñi daara yu dugal ci yëf yi xalifa général des mourides sëriñ Muntaxa Mbàkke Basiru l'observateur ne ko ay ñoo def seenub délégation démb ànd ak ay yu ñu ci yoonu murid demoon seeti xalifa bi li ñuy xalifa bi ak li leen xalifa bi tontu lépp mi ngi ci biir l'observateur la Sénégal moom xëy jël bi tegal ñu ko ci xëtam mu njëkk di ñu xalifa général des mourides na Cheikhouna Gueye di sëriñu daara bi ñu tëyee ci yoon ndax nee na dafa jéngoon ay ndongam bu ñu ko tëjee ci kaso bi dina woo kilifa diine yi ci réew mi yépp ngir ñu àndandoo bokk benn taxawaay source waa nañu Cheikhouna Gueye tey jii ci lañ ko war a atte ci tribunal bu Louga waaye bu ñu ko tëjee ci kaso bi dinañu jot Serigne Mountakha Mbacké Bassirou le témoigné nañu xalifa général des Mourides mi ngi dànkaafu gouvernement bi boole kook di déglu juge bi doyen des juges Samba Sall Sud Quotidien nee nañu lu jëm ci dossier petro bi audition yi jeex na tëj na ko démb fi mu nekk ni moo yore cëggal guyam guy gu daanu ci penc yaakaar amatu ja ñi ñàkk yaakaar ba toll ci sàkk ay pexe lii ko ne nañu dañoo nekk ci réew mi yoruñu dërëm doon ay mbëri làmb amuñu combat xamuñu seen ëllëg fan lay mujj moo tax ñu ñaan visa dem bitim réew booy kayre di ko dëggal ci journal bi dañu wax ne am na lu ëpp ñaari téeméeri mbër yu tasaaroo ci àdduna bi ndax ñàkk yaakaar ci réew mi El Hadj Bekay ne waa journal Les Échos xewit woowee bu ñu ci du jur jàmm dansé la ci sport bii di làmb ñu làmbi beneen xibaar ci xët mu njëkk l'Observateur Ramatulaay Si mooy ndaw si dem ci école yeeg di ngi dëkkee kidnappé doomi jàmbur